mbokk internetu Sénégal Buzz 221 mbokk yi di am mbégte ak kontante bu baax a baax a baax saa ne ni ñu koy defee ak yéen mbokk yi euh, di leen dalal ay ndaanaan wala ay kilifa yi nga xamante ne yéen ngi leen bëgg a gis à travers euh, Sénégal Buzz 221 waaye ni ko noonu tey rek la ñu dalal sang boo xamante ne yaakaar naa ni sénégalais xam nañu ko ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne euh, suñu boroom denk na ko ko mu di ñaan ak faj aajo bi nga xamante ne mi ngi koy dimbalee ñi nga xamante ne ñoo di nit ñi mu di ki nga xamante ni Cheikh Baye Signane borom fay coow léegi léegi di nit koo xamante ni yaakaar naa ni Euh, képp koo xamante ne rek am nga jàngoro wala jafe-jafe ba suñu borom boole la ak moom jàpp naa ni lépp dina saafara wu cheikh bi euh, tey ñu dalal la fa yéene seq ak yow li nga xamante ne moo di waxtaan fii ci Sénégal Buzz 221 euh, dañu lay bàyyi rek nga nuyoog ñi nga xamante ne ñoo di sénégalais yu ñuy bàyyi xel siyaar nañ la bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa seen bi yëpp di wax salaatu wasalaamu ala rasulillah kafaaka rabuka kam yakk fii ka waaki fatan kif ka min ha kam kamin ñu ngi lay ndokkeel yow tamit beneen yoon si eh, yitte yi nga bàyyi yëpp. Mm-hmm. pour teew ak ñun def ak ñun émission bi ñu ngi la ci ndokkeel di ndokkeel waa bi yëpp. Mm-hmm. Sénégal 221 nga xam ne ñëpp a koy seetaan si àdduna bi. Mm-hmm. dëgg-dëgg te li ñuy génnee nekk njëriñ nekk loo xamante ni dafay jëriñ askan wi. ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen ziar bu baax. di wax rek ne lépp loo xam ne ñu ngi ko fi wax rek yal na yàlla def mu dëppoog lu neex nit ñi. te saf nit ñi allah. macha allah muy kaddu yu euh, nuyoo yi nga xamante ni kaddu yu am solo la yi mu nuyoo mbokk internet yi waaye doore waxtaan bi rek ñu bëgg koo doore ak li nga xamante ne xëy na cheikh bi euh, dañuy kay ci mbir yi nga xamante ne mi ngi xew tey ci laata ñuy ñëw ci mbir yi nga xamante ne suñu borom dénk na la nga ci faj di ci ñaan suñu borom di ko saafaral ñu doore waxtaan bi rek ci mbirum li nga xamante ne moo di falte cheikh bi jamono ji euh, gis nañ sénégalais ku ci ne bëgg nga mbirum xëccoo mbirum ne ci kaw mbirum falte ah, suñu borom dénk la ci mbóot yoo xamante ni da nga ko ci ñaan yàlla di ko dogal tey mbirum falte suma la si doon laaj tey nga ci saafaral ak sénégalais bëgg ko la ndax euh, li waral si di yu si bëri di ñu woo bëgg a def ak ñun émission si mbiru Palte dañuy bëgg di wax ak ñun loolu mbiram yàlla la. Mhm. ndax yàlla may nañ si loo xam ne yaakaar naa wax nañ ko waxati ko si mbiru Palte comme li ci demee ni bopp tan bi ma lay wax. Mhm. lépp loo xam ne ñu ngi koy fal nit. dëgg-dëgg buñ la ko ñu fexee ba nga am si rek fépp foo bëgg yegg si saa am na da fay yegg. ñu ngi si yor yeneen i mbóot yoo xam ne mënuñ toog di ko wax wax dëgg yàlla ndax yàlla moo ñu may loolu suñu maam yépp mhm. ay ceddoo la yoo xam ne bàyyi moo leen tuubal bàyyi moo def ñuy ay nit mhm. képp ku ñu xam xam ne xam si ñaaneen dëgg dëgg dëgg da nga xam ne mbiru ndukkumaan seen loxo ñoo ko téye ci mbiru palte mhm. ndax yàlla may nañu ñoo am ñaari dégg yoo xam ne suñu maam yi ñoo ko moom te it képp ku ñuy fal fa lañ lay falee képp koo xam ne bëgg nañ laa yëkkati si nguur ak lu mu doon ñoom buñ la yàlla defee ngeen juboo si si ay kàddu rek mhm. ay condition yi lay te nga nangu ko rek bu soobee yàlla fépp foo bëgg a yegg mën nga faa yegg mhm. loolu moom ñu ngi si sant yàlla mhm. bopp tan bi yaakaar naa wax nañ ko waxati ko te jamono ji maa yàqu ñi ko bëgg bëri nañ lool waaye nag benn yoon lañ koy mën a liggéey si weer bi loolu moo tax liggéey bi yéex ñu ngi jégalu itam ñi nga xam ne tout le temps ñu ngi si yow bëg ko wax dëgg yàlla ñu ngi leen di wax ne ngeen jéggal ñu ci côté boobu xam ne rek temps bi moo ko maye wut te buñ ko may bu ko temps bi maye woon dëgg dëgg dëgg mhm. lépp loo xam ne nit sant nañu ko rek danañ ko ko defal te du ak benn coono mhm. waaye ñu xamee ko noonu ne benn yoon lañ koy mën a liggéey ci weer bi mhm. te bu weer bi soree rek dootuñ ko mën a liggéey ndax kenn ku nekk boo koy liggéeyal da nga koy liggéeyal lu koy jëriñ waaye doo ko liggéeyal loo xam ne bu demee du si njëriñ loolu rek la waaye mbiru palte moom yàlla moo ñu ci may te lim ñu si mayee ñu ngi koy sante yàlla te ñu ngi siy jëflanteeg ñoom ñu ngi ciy gis natiija wax dëgg yàlla loolu moom euh, lu wér la. Uh-huh. macha allah macha allah muy kàddu yu am solo yoo xamante ne xëy na suñu borom dénk na ko ko mu koy euh, saafara yi ci li nga xamante ne ñoo di jàmm ñi ci wàllum falte waaye bu ma jugee ci point boobu rek beneen mbir mi nga xamante ne jamono ji euh, taxaw na ci dëkk bi tey suñu borom boole ko ci say tur borom fay coow léegi léegi bu ñu xoolee coow yi nga xamante ne jamono ji mi ngi ci réew mi bëri na wàllum agression yi wàllum ray gi taxaw ci dëkk gi cheikh bi sénégalais yëpp jamono jooju ñu ngi ñaan coow li nga xamante ne moo ne ci réew mi nga fay ko waaye keneen ki nga xamante ne bëgg na fay coow lu ci mel ni coow wàllum liggéeyukaayam wàllum këram ak yeneen ak yeneen da nga ciy ñaan waaw dëgg la loolu moom dëgg la ndax Sénégal wax dëgg yàlla ñu ngi matsawu euh, li nga xam ne moo xew Tivaouane si hôpital bi mhm. ñu ngi jaalee ñi nga xamante ni tey seeni doom dëgg-dëgg génne nañ ci àdduna ñu ngi leen di jaal bu baax a baax a baax di leen matsawu mhm. te dëgg-dëgg di wax ne dëgg-dëgg mbir mi waru demee nii mhm. ndax état ci boppam dafa war a jël ay mesures am yi nga xamante ni tey war na ko mën a jël si hôpital yi. Mm-hmm. ndax coono yi si gars yi jànkuwanteeg dafa bëri am na si yu bëree bëree bëri nit mënu koo nettali mhm. waaye ñun ñi nga xam ne ñu ngi jëflanteeg doomu aadama yi di dugg fu nekk mhm. ñu ngi xam ne ñu ngi daj ay coono su ay si hôpital yi mhm. te dëgg dëgg nag Sénégal dëkku jullit la te it dëkku yërmaane la dëkku tiranga la moo tax ñu ngi wax rek suñ euh, président ak suñ état dégg nga ñu jàppale ñu xettali askan wi si côté boobu ba duñ ci amati benn jafe-jafe ndax dégg dëgg lu métti la euh, dee yi nga xam ne nag nit ñi ñu ngi koy wax dee yooyu yëpp daanaka yu ci bëri du naturel mhm. ndax doomu aadama yi léegi dañu toll foo xam ne dañuy jëfandikoo loo xamante ni xelu doomu aadama du yegg foofu mhm. nit bu tër nit ko wala mu tër nit ko xam nga ne kooku tey dem na ba xolam li jikkoy doomu aadama si nit ki dañ na si moom mhm. waaye fekkoon ne aadama yetu gi mu ngi si moom rek du xalaata ray nit loolu moom ñu ngi koy wax euh, askan wi yëpp di wax ne daal nañ moytu yenn yi ndax mbiru seytaane dëgg dëgg dafa bëri Sénégal waaw dëgg dëgg nag suñuy maam yi li ñu fi bàyyi lool li ñu fi jël li ñu fi tàggatal dëgg dëgg dañuy waaj a wàcc yoon yi te loolu warul ñu ndax bët bu set yaa ngi dégg internet bi li ñuy yàq suñuy suñuy kilifa li ñuy yàq suñuy maam yi te dëgg dëgg nag leblewuñ loolu te liñ leble nag dëgg dëgg te ñu war leen koo fay mu ñu war leen koo njukkalee de démb rek suñu xalifa bi nga xam ne moo nekk Touba mhm. eh, si bi mu ñëwee fii si Dakar si Masaalikul Jinaan bi nga xëddiyee yu am solo yi ko gars yi jox mhm. dégg loolu moom la ñu xam si Sénégal teraanga mhm. jooju mhm. teraanga jooju lañ namu si Sénégal teraanga mhm. jooju la ñu war a gis si Sénégal ndax suñu maam yi liggéeyal nañu loo xam ne amul benn doomu aadama bu man a taxaw man leen a fay Sénégal bu demee ba nekk si état bi mu nekk nii war nañu mën a xoolaat suñu bopp war nañu mën a xoolaat suñu jikko yi dégg nga defaraat jikko yi defaraat jikko yi bu baax a baax a baax a baax suñ tegee suñ mag seen place rek Sénégal dana nekk si jàmm dana nekk si teraanga Mm-hmm. incha allahu taala macha allah mbokk yi muy kàddu yu am solo yoo xamante ne jàpp naa ni eh, ñi nga xamante ne bëgg nañoo gisee ak yow xam naa dinañ leen jox après numéro yi nga xamante moom la mën a jokkoo ak yow ci suufu écran bi waaye ba tey rek ci jàngoro ji nga xamante ne cheikh bi jamono ji mi ngi sonal sénégalais yi muy feebaru hémorroïde loolu tamit suñu la ci kurus ak ñaan goo xamante da nga koy saafaral ci ñi ne tey mi ngi seen kaw waaw dëgg la mbiru hémorroïde moom yaakaar naa ne ñi ci xam dëgg-dëgg mm. eh, xam nañ ne ñun doomi ndukkumaan lañ mm-hmm. te mbiru mbiru garabu murit yaakaar naa ne de amul kenn ku ñu si man mhm. wala kenn koo xamante ni liñ ciy liggéey yaa ngi ko ciy liggéey te loolu balaa mu doon neex nga def ay micro trottoir wala nga def émission boo xam ne eh, dégg nga direct lay nekk nit ñi mën a dugg boobaa da nga xam ne dëgg-dëgg mhm. liñ ci liggéey dégg nga natije bi ñu ci am yàlla wax dëgg yàlla moom mënuñ la ko wax mhm. loolu jaami yàlla yi koy jox rek ñoom ñoo la ko mën a wax loolu moom jarul sax ñu si yaatal ndax boo demee fi dëkk muy Saalum muy ka dégg nga ñun ñëpp képp koo xamante ni dem nga ba Kaffrine nga laajte fan la ñuy joxee hémorroïde rek ko mm-hmm. koo mantu daje dana la yóbbu suñ kër mm-hmm. loolu sant yàlla la mm-hmm. ñu ngi koy indi Dakar fu nekk ci Europe bi gaa yi ñu ngi ko fay yónnee dégg nga euh, garab bi dégg nga du hémorroïde rek lay faj ndoxu siteng si hémorroïde teng si dégg nga balat maa ngi si dégg te dafay defar ndoxu góor a ngóor dafay dafay tax góor guy sëy rek dangay am kattan waxoon naa fi si émission ne maa ngeeg sunguf soo xam ne képp ku ko naan si sëy dégg nga lu mu bonti bonti bonti bonti bonti 30 minutes yi su matut tamit dégg nga dafa fekk yow nga am feebar rek mhm. waaye boo amul feebar nga naan ko 30 minutes mën nga koo sëy te doo daanu te mhm. loolu yaakaar naa ne ñi ko jot a ñoo ñooñu xam nañ li ma leen di wax yombut nag pour ñu am ko yombut pour ñu jox ko doomu aadama mhm. waaye nag yàlla moo ñu may xam-xam boo xam ne si mbiru garab lépp luñ la ci wax rek dëgg la loolu moom ñu ngi ciy sant yàlla bu baax macha allah muy kàddu yu am solo waaye ba tey rek damay dese ni ci beneen feebar boo xamante ne jamono ji cheikh bi euh, nekk na aussi loo xamante ni sonal nañ ñi nga xamante ni tamit ñoo di sénégalais mm-hmm. waaye rawatina góor ñi muy li nga xamante ni moo di faiblesse sexuelle mm-hmm. euh, te léegi nga xamante ni tey bëri na ci góor ñi ba nga xamante ne ñu bëri euh, ñu ngi koy dundaale te ñemew ñoo génnee waxi ko ndax jàpp nañ ne fu ñu dem rek seen aajo du faju mm-hmm. tey ku ci jàkkarloo ki nga xamante ni moo di cheikh Baye Signane suñu borom dina faj sa aajo ci wàllum télé li suñu borom waaw dëgg la ndax dëgg-dëgg euh, sëriñ si koy woote dafa bari mm-hmm. ndax euh, am na yenn wax yoo xam boo koy wax dañuy foog ne yow mi sa bopp rek moo la ñor wala nangam ak nangam waaye damaa bëgg doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi yëngatu si yu demee nii. ñu mm-hmm. dem gëstu ji. Mm-hmm. xam-xam du doy. te it képp ku bëgg woote nit ñi woy si la danga war a fekk bu nit ñi bu la nit ñi woy see rek lañ la woy see ñu fekk ko fa. waaye nag jamono ji moo toll foo xam ne naxaate bi bëri na. Euh, wax lu dul dëgg bari na te nit ñi gëmatuñ yàlla gëm guñ ko war a gëmee mhm. wala boog dama jàpp ne sax xam ngi moo des mhm. ndax xam yàlla moo gën a wóor fuuf mhm. te buñ ko xamee rek man koo gëm waaye dëgg-dëgg feebar yi nga xamante ni góor ñi ñu ngi koy jànkuwanteeg da mën naa am si lekk yi lañ koy tuddee waaye nag buñ delloo si yu maam yi rek yi fi naa maam yi bàyyi rek kàttan guñ bëgg a am rek danañ ko am loolu moom maa ngi leen koy wax ne leen nañ ut garab nit ku feebar da ngay faju dégg waaye nag boo fajuwut mhm. feebar bi mën naa gën a métti ci yow mhm. moo tax nag boobu bu baax a baax a baax a baax waaw dëgg-dëgg dëgg-dëgg muy kàddu yu am solo yoo xamante ne xëy na ba tey rek cheikh bi dina jëriñ ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel bëgg ci li nga xamante ne moo di euh, saafara ak mucc waaye jamono ji gis nañ li nga xamante ne aussi muy tas kër yu bari ci ñi nga xamante ne moo di néegu sëy yi muy wàllum ñàkk doom ji nga xamante ne jigéen ñi ñu ngi koy dundaale seen biir néegu sëy mu doon jafe-jafe joo xamante ne ku nekk koy jooy cheikh bi nga ciy saafaral ay mbir waaw dëgg la loolu moom yàlla mu ngi ci may ndax mbiru am doom euh, sa néeg euh, yooyu ci wax bari na trop. Mhm. Euh, ndax képp koo xamante ni dafa dafa dafa mantu am doom. Mhm. kooku moom maa ngi lay wax ne la bu yàlla defee ñu jëflante. Mhm. moom ala kulli yàlla mën laa may doom. képp koo xam ne nag danga mos a am doom taxaw. kooku moom doo sax ñu koy xool. ak ku mantu doon su ñëwee bu jëflante yàlla dana la may doom. loolu yaakaar naa ñëpp xam nañ ko si man. te wax dëgg yàlla ñu ngi jëflante ñëpp. Mm-hmm. bari nañ ci ay turandoor ñoo xamante ni eh, bañ gëjee am doom kenn xamul mën àlla waaye bu ñu rek yàlla may leen doom dañuy jox fay tiraanga jooju mm-hmm. eh, dégg nga tuddee ñu doom jooju mm-hmm. loolu sant yàlla te yaakaar naa ne bari nañ ci ñoo xam ne lu mat bonti mat man ëpp na 15 te loolu sant yàlla la moo tax maa ngi wax daal doomu aadama yi ne leen lépp loo xam ne nit ki mu ngi koy sàkku na na dem fi nga xamante ni fa la ko yaakaaree loolu daf si am solo. Mhm. waaw loolu moom maa leen koy wax ñoom ñëpp ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax. Mhm. marhaban macha allah muy kàddu yu am solo waaye ba tey rek damay deseet ci beneen ji nga xamante ne aussi jigéen ñi tamit ñu ngi koy wut euh, bëgg ko muy mhm. loo xamante ne ñu bëri dañu koy wër foo xamante ne mënuñu ko am tey euh, cheikh bi euh, jigéen ji nga xamante ne dafa bëgg noot boroom këram. Euh, loolu yaakaar naa ne wala borom kër gi bëgg a noot soxnaam ngir mu topp ci ginnaawam loolu jàpp nañ ni euh, diine bañ na ko xama bañu ko waaye aussi suñu borom may na ci loo xamante ne macha allah képp ko si jëflanteel mu sant ci. waaw loolu tamit dafa am ñaari façon yoo xam ne dama ko siy liggéey. Mhm. daf si am loo xam ne fekkee ne nit ki moo bëgg a noot borom këram. Mhm. si loo xam ne tagul ko das tagul ko fenn amuñ benn jafe-jafe man duma lor doomu aadama mhm. waaye lépp luy defar diggante jëkkër ak jabar mm-hmm. loolu moom ala kulli haalin danaa si liggéey te it mm-hmm. képp ku ma si seet si mm-hmm. ak ñi ma si jot a seet si xam nañ li may wax euh, lépp luy rataxal diggante danaa ko def waaye lépp luy noot doomu aadama ba nga xam ne da nga koy lor loolu moom du ma ko xamee rek du ma ko def moo tax nag moo loolu yaakaar naa dafa jar leeral ñi nga xamante ne dafay dañoo bëgg jabar dañoo bëgg jabar mu tëleen kooku am nañ ci ay noob yoo xam ne wala ay càngat yoo xam ne mhm. si at mi bu ñu la ko defaree du mat six mois te li nga bëgg sottiwut mhm. mooy jigéen ñi si côté mhm. jigéen ñi ak si côté góor ñi yëpp waaw ñi nga xam ne dañoo bëgg jëkkër ñu moom yaakaar naa ne ñoo gën a yomb sax comme góor ñi liggéeyal góor jigéen waaw jigéen ñi si boppam ñi bëgg jëkkër mhm. ñoom liggéeyal leen moo gën a yomb nga liggéeyal góor mhm. waaw amul kenn ku si jëflante mu mat juróom benn weer ta amoo jëkkër loolu mënu nekk moom mhm. waaw loolu moom ala kulli haal mënu nekk moom <laughs> waaw waaye nag jigéen ju si bëgg a nopp sa jëkkër dégg nga pour diggante bi baax diggante bi neex ba du ngeen am benn jafe-jafe loolu moom yàlla may nañu si bu baax a baax a baax baax a baax waaw waaye li ñu boñ daal mooy lor doomu aadama waaye lépp luy jëriñ doomu aadama rek dañ koy def incha allahu taala <laughs> macha allah muy kàddu yu am solo waaye beneen mbir bi nga xamante ne aussi suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk ci la ca bitim réew mhm. euh, di waa diaspora bi ñoom it aussi saa su rek lañ may faral di li nga xamante ne moo di yóbbante seen kàddu ci li nga xamante ne moo di wàllum këyit ak mhm. wàllum euh, am li nga xamante ne tey moo di soxna tubaab wala tée tubaab wala noot tubaab loolu aussi dekk na si jafe-jafe yoo xamante ne aussi bëgg nañ ku leen cay saafaral suñu borom cëral la ci waaw dëgg la ndax ñoom loolu seen yitte la mhm. ndax réewuñ jaamur ba fa nekkee rek dafa laaj nga am këyit ndax boo amul kayit rek daanaka jafe-jafe yi ngay jànkuwante rek nit mënul la koo wax mhm. te it euh, dëgg dëgg man ñooñu dama leen di ñeewantal ndax xam naa li si génn mhm. waaw ndax li ma dëkk yi ma war réew yi ma war bëri na trop mhm. te kenn ba sama nit ku ne danaa daj moom dégg nga ñoom dañuy jànk façon sëriñ bu nekk danañ koy jëflante pour am kayit ndax ñi mu si jot a jëflante ñëpp balaa ñu ma bu ñu ma woowee téléphone li ñu ma njëkk a wax mooy jëflante nag ay sëriñ yu bëri waaye man gisuma benn résultat loolu lañ may njëkk a wax waaye wax dëgg yàlla ay mbiru dem ñu ñaan ay kayit wala ay visa yii nii yooyu moom wax dëgg yàlla du loolu moom daanaka amul sax coono. Mm-hmm. waaw amul kenn kuñ ci jëflante gi itam si côté boobu bu fukk lañ. Mm-hmm. diis mm-hmm. jàppal na juróom-ñett yëpp yàlla dana leen ci may natu yi jamono. dana leen ci may résultat yoo xam ne macha allah lay nekk. loolu moom yaakaar naa ne ñi si biti rek boo leen fexoon ko jot eh, jarul sax ñuy def émission bi. waaw. macha allah moom dama leen xam daal <laughs> xam naa nu may jëflante ak ñoom mhm. tamit euh, ak heure bu mantu nekk dañ la woyu mhm. danañ fexe tamit soxla bi nga am ñu faj ko bu soobee yàlla incha <laughs> macha allah loo xamante ne aussi ñeneen ñi jàpp nañ ni boo amee ñaan rek wala am gàllaaj mhm. lépp mën na laa yomb waaye am loo xamante ne aussi cheikh bi euh, suñu borom may na la ci loolu te nit ñi ngi doxaale ci àdduna te ñu bari amuñu ko muy wàllu muslaay ak aar sa bopp loolu aussi tamit euh, yaa ngi ci safaral jàngoro ñu bari ñoo xamante ne tey sénégalais bu ne jàpp na ni tey war naa am coow waaye day fàtte li nga xamante ni moo di muslaay ci boppam waa dëgg la ndax nit ñi léegi ubbeeku rek moo leen ñor moo tax uh-huh. te it uh, nit uh, ndaw uh-huh. li li muy li ko war a gën a yitteel mooy mbiru kaaraangeem uh-huh. ndax am am si loxo yàlla nekk waaye nag kaaraange dafa jar nit ki di ko ñaan fu mu te it mbiru kaaraange li mu mën a def si doomu aadama bi feebar dana la mucc da nga ci mucc mhm. tolof tolof yi àdduna yi nga xam ne dafay am yëpp danga nga ci mucc mhm. te yooyu fekkee ne da ngay ñaan ubbeeku yàlla may la ubbeeku te yooyu muccoo ci daanaka ubbeeku ba amul njariñ mhm. waaye li njëkk si doomu aadama mooy na ñaan kaaraange waaw fekk mu ngi am kaaraange rek li des ci kanamam dafay yomb te wax dëgg yàlla euh, nit koo xamante ne ñu ngi jëflante yow si mbir yooyu balaa ñu ciy dugg danañ ko xool Mm-hmm. ndax dafa bëri doomu aadama yi ay rab yu ñuy jaaxasoog wala ay mbiru ngelawu seytaan yu ñuy jaaxasoog yoo xam ne mooy tëj seen i mbir mm-hmm. léegi nag boo ko xoolee gis ci ñoom ay tegtal nga wax leen ko ñu def ko cangat boo leen jox rek yàlla daf ciy def tawféex mm-hmm. moo tax liggéey boobu mu yomb ñu lool te euh, loolu yaakaar naa ne euh, ñi ciy jëflante alhamdulilah yàlla ngi ci may ndam daal waaw xam nga nag wax ci sa bopp mooy yombat dëgg la dëgg la ay mbiru kaaraange ak ay mbiru ubbeeku yooyu moom sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax a nit ki ne nit nga xam xamante ne aussi na loolu tamit sénégalais yi bëri bëgg nañ ñu ko bëri mm. ñu samp la fa ba doo fa jugeeti tamit jàpp naa ni xam naa ni bu ci woon wax sax waaye foog ma dugg ci ak yow ndax nga waaw la dëgg la waaw loolu bëri na ndax ah. euh, ñi may seet ñu si bari dañ naan la euh, bërëb bi ma nekk dama faam ay jafe-jafe mm-hmm. ñu war leen fa jëlee yu demee noonu yooyu euh, secret bi ñu lay jox moom bu ñu la ko joxee ne dama def ko nangam wala dama def ko si place sàngam mm-hmm. kanaa ko rek moo la fay jëlee waaw waaye ala ñu la ko joxee nga def ko niñ la ko waxee moom amul keneen ku la mën a jëlee si place boobu xanaa yow mu neex la rek hmm? waaw waaw yow lay neex rek nga jógee si place boobu hmm. waaye mbindeef bu mën a taxaw ne dana la fa jëlee ku repp lay nekk hmm. waaw képp koo xam ne nag yaa ngi bëgg sàkku bërëb boo liggéey ak yooyu Mm-hmm. incha allah boo ñëwee rek ñu am ñu ci jëflante ak yàlla dana la ci defal tawféex uh-huh. waaw loolu moom sant nañ ci yàlla macha allah macha allah muy kàddu yu am solo mbokk yi mm-hmm. waaye euh, laataa may tàggoo ak moom rek xam naa dinaa jox ñëwaat ak moom après mu dimbali sénégalais yi ci joxe ñaan goo xamante ne ku ne rek dina la mën a jëriñ mm-hmm. ci yi nga xamante ne jamono ji moo xew euh, ci réew mi waaye aussi sax bi euh, beneen actualité tamit dama bëgg ñuy waxtaan ci démb sénégalais yëpp gis ko seen xol sedd ci ci jëf ji rëy ji nga xamante ne alaaji mbàkk yu fay démb jëf na ko ak la xalif général des mourides sëriñ Basiru loolu euh, yëkkati ci lu toll un milliard jox ko ko addiya euh, bi nga yégee loolu ak nga gis ko naka la la def ak yan kàddu nga ciy yëkkati bokk ak sénégalais dañ ci sant yàlla dañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax xam ne mbàkk yu fay boobu mhm. euh, xam na lan mooy njëriñu xidma mhm. ndax doomu aadama bi ci xidma rek nga mën a yokkoo mhm. ak lu mant doon léegi nag bu yàlla mayee tawféex may la alal may la am am Euh, ki mu xiir la si ngay liggéeyal yàlla si bintu si bunt boo xamante ni ñépp xam nañ ko mhm. loolu sant yàlla la mhm. te it alal jooju mu joxe euh, biñ ko joxee xalifa bi lim wax mooy dugalaat nañ ko si jumaa ji mhm. bon nga xam ne ban bon néegab yàlla boobu euh, mbiram yàlla lay nekk lay delluwaat rek kooku bon ñun ñëpp lay jàngal daf ñoo jàngal nañu lépp lu waay man toom sa àdduna rek dégg nga jox ko yàlla lépp loo ñàkk rek laaj ko yàlla Mhm. loolu yaakaar naa ne message boobu rek la mbàkki yu fay joxe. Mhm. moo tax ñu ngi ciy sant yàlla ci côté boobu baax a baax mhm. ñu ngi ndokkeel itam suñu xalifa Cheikh Ma Ibrahima Niass si tukkeem yi nga xam ne mu ngi koy def si côté Darfour bi wax dëgg yàlla nga xam ne réew yu jafee dem lañ réew yu dee dem lañ dégg nga Baye Niass liggéey fa liggéey yoo xam ne ñun ñëpp seede nañ loolu tey bi fa duggee rek eh, image yi yaakaar naa mu ngi daw tey eh, bépp télé Sénégal bu fi nekk rek war nga mën a jël image yooyu te it eh, liggéeyal na Sénégal liggéeyal na àdduna bi yëpp. Mhm. te maa ngi wax ne président de la république muy Macky Sall. Mhm. heure boo xamante ni dégg nga euh, suñ suñ xalifa bi mu gi ñëf si war naa mën a dem teertu ko si aéroport ba. Mhm. dégg nga ànd ak moom ba Medina Baye mu xam ne kii. dégg nga si sordaal yi nga xamante ni sordaal yenentu bi lañ. ñoo demoon doon liggéeyal yenentu doon liggéeyal Sénégal. dégg nga mu delloo ko njukkal boobu ñun Sénégal yëpp ñu taxaw si loolu ndokkeel ko. su boobaa yaakaar naa ne Sénégal dana am beneen xar xanam bu bees dana am beneen nga yitte joo ni amuñ ko woon mhm. loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax ñu ngi gërëm suñu xalifa Cheikh Baye Awal mhm. dégg nga ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi suñu sëriñ euh, Cheikh Cheikh Abdou Barhama ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk leeram yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla xare ko àjjana ñaan yàlla barkeel njabootam gi mu fi bàyyi yëpp mhm. ci barke Baye arab yi dégg nga ñu ngi am kontaan baax a baax a baax ci Sénégal di wax rek ne lépp loo xam ne seen bëgg-bëgg la yal na yàlla defal leen ko yal na yàlla def si Sénégal jàmm dégg nga def ko si mboolem àdduna bi nga xam ne ñun ñëpp danañ nekk ci jàmm nekk ci teraanga dëgg-dëgg kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax a baax ci yitte ju kawe ji nga xam ne def nga ko euh, bàyyi sa yitte yëpp ñëw dégg nga pour jox missage boo xam ne doomu aadama yi doomu Sénégal yi danañ ci mën a jëriñ loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax wax dëgg yàlla kontaan nañ te euh, lii ñuy def ni lu mantu ñàkk la mhm. ndax dañuy jéem a dimbale sénégalais yi mhm. ci yenn yi nga xam ne ñu ngi leen mu ngi leen di faral di daal mhm. ndax nit ñi naxaate bi li ma lay wax ba bu set maa ngi koy wax ne dafa bëri te it sëriñ ci dëgg-dëgg ñu ci bëri ragaltuñ yàlla te it ñun tamit dañoo war a liggéeyal yàlla si li ñu yàlla may ñu dimbalee si askan wi loolu rek moo ma tax a jóg waaye du dara waaye émission bi sumay mbokk sumay nijaay sumay papa yëpp kenn bëggut ko ci ma koy def waaye nag mënuñ koo ñàkk a def ndax li ñuy toog di ko gis hmm. dégg nga muy ñaaw lool hmm. wala boog muy nekk loo xamante ni dara rafetu si te hmm. dara baaxu si war nañu mën a taxaw dimbale ñi nga xamante ni tey bëgg nañ lu baax bëgg nañ itam seen mbir kawe bëgg nañ itam ñu nekk si ay situation yu baax loolu rek moo tax ñu koy def lépp luñ fi wax mu nekk loo xamante ni lu lu ñaaw la wala loo xam ne waruñ koo dégg si ñun mm-hmm. ñu ngi leen di baalu àq lépp loo xam ne lu rafet la rek mm-hmm. ngeen xam ne mbiram yàlla la wasalaamaaleykum wa rahmatullah wasalaamaaleykum wa mbokk yi ci fàttali rek ñu ngi woon ak euh, Cheikh Baye ñaan euh, borom fay coow euh, léegi-léegi ah ci kat xam-xam ak li nga xamante ne suñu borom denk na ko ko mu ci saafaral ñi nga xamante ne moo di jàngaro doomu aadama yi waaye ba tey rek ci fàttali li nga xamante ne moo di adresse bi yéen ñi nga xamante ne yéen bëgg a ak mooma ah, numéro téléphone yaa ngi noonu ci suufu écran bi adresse bi fekk nekk nga xamante ni moo di Kaffrine wala Kër Massar wala fi nga xamante ni moo di Parcelles Assainies képp ku jokkoo ak moom rek dinañ la indiqué ba fa nga xamante ne fa la nekk mu di borom xam-xam boo xamante ne suñu borom dénk na ko muy saafaral li nga xamante ni moo di jàngoro doomu aadama yi cheikh bi ñu ngi kontaan bu baax a baax ci jàkkaarloo ak yow mbokki yi di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf